bismillahi rahmaani rahim wasalaatu wasalaam wala rasulillahi salallahu euh, Cheikh ñu ngi lay nuyu baax a baax a baax man la honorable député Samba Dang euh, dëkk Saloum dëkk département bu Mbirkilaan euh, je suis le coordinateur départemental de PASTEF Mbirkilaan chargé de formation de la zone centre la région de Kaolack Kaffrine Diourbel et Fatick dans Daaray Cheikh Anta Diop l'école du parti daa nekk député aussi à l'Assemblée nationale école du parti Daaray Cheikh Anta Diop dirigée par monsieur Moustapha Sarré Euh, ministre de la formation professionnelle et de l'enseignement technique nekk porte-parole du gouvernement euh, quelqu'un qu'on rend vraiment hommage parce que suñu doyen yi la bokk ci xeex bi yàgg na ci trop ku ko gëmoon la boo yàlla jox ko ci tey li mu ko ci jox oui loolu c'est très normal parce que euh, li ñuy wax rek mooy que ni à chaque fois député yi mën na ñëw provoquer donc ce qu'on euh, une motion de censure par rapport à une question de confiance du premier ministre premier ministre bu ñëwee exposé li nga xam ne moom mooy euh, go kiyam orientation maanaam fi mu bëgg a jëmee réew mi day teg question de confiance ci député yi député yi bu leen neexee ñun am nañ ci confiance wala amuñ ci confiance comme ñun niñ ko defoon ak Amadou Ba donc buñ ñëwee boo nguur gi changé régime bu bees ñëw euh, trois mois constitution bi nee na donc le amul délai mais en tout cas le premier ministre dafa ñëw def sa déclaration de politique générale mais malheureusement ñun waxoon nañ ko Amadou Ba ne woon nañ ko bul ñëw assemblée nationale parce que règlement intérieur bii nii lépp luy premier ministre dañ ko cee génnee ba mu set wecc bii lépp luy premier ministre dañ ko cee génnee bu mu set wecc léegi nag ñun leen comme bii baaxul bii c'est un faux règlement intérieur changé leen ko waxoon nañ Ba Amadou Ba parce que ñoo nekkoon au pouvoir mënuñ ci dara bi Ousmane Sonko le président Ousmane Sonko ñëwee nekk premier ministre bëgg ñëw aussi ñu waxaat ko laa même chose ne ko bul ñëw assemblée nationale parce que règlement intérieur bu baaxul mooy itam ci la tonton ne kon du ma ñëw assemblée nationale comme règlement intérieur bu baaxul tan que defaruñu règlement intérieur bi maintenant defar nañ ñoom règlement intérieur bi kon nangu nañ ne règlement intérieur bi baaxuloon maintenant defar nañ ko nangu nañ ko donc en en collaboration avec le président des groupes parlementaire que ce soit Yewwi que ce soit Wallu que ce soit Benno Bokk Yaakaar ak les non inscrits qui ont été représentés par Sanu ak le service euh, législatif ñoom ñëpp ñu dajaloo dem Mbour def sali benn conclave donc defaraat règlement intérieur bi. ah bien sûr bien sûr donc fixé nañ ko le 13 septembre incha allah rabi dañuy ñaan yàlla le septembre fekk ñu fi pour que qu'on fasse donc cette déclaration de politique générale. bu fekkee diggante bi dara xew fii parce que diggante fi li fi mën a xew mooy euh, règlement intérieur assemblée nationale mais plus aussi constitution bu Sénégal moom moo may le premier le président de la république. donc ne ko bu assemblée nationale amee ñaari at yow am nga droit nga tas ko loolu nag droit wu président de la république la moom mooy xam ndax da koy neex mu tas assemblée nationale wala du ko tas maintenant bu fekkee le 12 da koy tas ça veut dire que ne bu ñu tasee assemblée euh, nationale le 12 septembre le 13 kon déclaration de politique générale mun ta am maintenant bu fekkee tasuñ ko le 12 ça veut dire que le 13 incha allah rabi dinañ def déclaration de politique générale. loolu yëpp ci loxo président de la république nekk ndax moom moo yore carte moom moo yore lépp ci loxoom. donc moom mooy xool lu suñ prérogative ñun waaye prérogative am la moom. da nga ne wàllu démocratie démocratie mooy lan mooy li ñëpp ànd nga ànd ceeg ñoom Sénégal boo xoolee ci li ñëpp ànd mooy lan mooy dañu dem élection au mois de mars. bi ñu demee élection au mois de mars Sénégalais yëpp à 54 pour cent voire 55 pour cent ànd ne le programme du président du candidat Bassirou Diomaye Diakhar fay moo ñu doy ñoom ñu jàppale ko gunge ko ba fal ko kon kooku bu fekkee démocratie la ñuy wax kooku ci boppam moom moo war a ne man de wax dëgg yàlla. kon député yi ñoo ma doy su boobaa mën na soumettre à au peuple sénégalais à la population sénégalaise une nouvelle législature ne leen kon tànnal leen ma député yi ma doy kon li ma bëgg wax foofu mooy lan bu fekkee démocratie la ñuy topp kon assemblée nationale bi waroon na ak démocratie ndax assemblée nationale bi waroon na ak président de la république nga xam ne moom la ñu fal ay bëgg-bëggam ndax indi na fi débat d' orientation budgétaire ñu dàq ko avec le des finances mu fi projet de loi ñu dàq ko kon assemblée nationale bi bëggul li président de la république bëgg te président de la république bi bëgg mooy li Sénégal yi bëgg kon bu ñu waxee ci wàllu démocratie ñu kon assemblée bi wax man jàpp naa ne kon président day demaat laajaat Sénégal yi ban assemblée la bëgg xool ndax Sénégal yi dañ ko jox wala duñ ko jox non bu fekkee du ko arrangé moom mooy xool bu fekkee da koy arrangé moom mooy xool mais jàpp naa ne comme indi na fi ñaari loi jàllut kon jàpp naa ne arrangé wu ko mais loolu moom mooy xool parce que politique lépp dynamique politique tout est dynamique tey mun nga am vérité tey à huit heures dix heures vérité bi changé nekk beneen donc moom mooy xool il a toutes les cartes en moom mooy xool le 12 am na possibilité tas assemblée nationale su ko neexee mu tas ko su ko neexee mu bàyyi assemblée nationale su ko leeree ne aussi euh, moom li mu bëgg a jàllale dina ko jàllale boo ko neexee mais en tout cas li mu fi jot a indeegum jàllagut te kon comme naa jàpp naa li mu fi jot a indeegum jàllagul moom mooy xool waaw moom mooy xool parce que il a ses en politique et tout. xam nga ne président assemblée euh, kii HCCT. ak président conseil économique social environnemental décret lañ koy nommé président la su ko neexoon mu dindi décret génne leen foofu ba pare man mi sax mu nommé fa président am institution yoo xam ne dañuy lekk xaalis réew mi ba pare amuluñ ko njëriñ ndax assemblée ay assemblée consultative lañ duñ jël dogal président mooy bëgg rek laaj leen xalaat laaj leen xalaat ñu jox ko xalaat maintenant comme assemblée nationale moom fi mën na leen jox jàpp nañ ne pour yaxanal gafaka askan yaxanal gafaka réew mi nañ jël xaalis boobu noonu nga xam ne milliards boo ci boolee au conseil des dialogues des territoires bi Benoît Sambou jiitaloon day dem ba 17 milliards sax ñu jël ko dugalaat ko ci askan bi dugalaat ko ci bëgg-bëgg askan moo gën loolu moo nekkoon suñu programme de campagne bi ñu nommé le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye loolu la ñëwaat tegaat ko ci table député yi parce que par deux voies la soit mu mu yóbbu mu ne député yi léegi maa ngi leen di laaj ndax ma génnee ko parce que dama ko bëgg a génnee député yi bañal ko ko kon man jàpp naa ne moom mu ngi ci logique bi mu nekkoon mooy yaxanal euh, askan bi seen ama seen am-am seen seen seen seen gafaga ba nga xam ne day mun a delluwaat ci ñoom mais ñii nag gisewuñ ko noonu bañal nañ ko ko tàllal leen loxo ñu bañal ko ko mu tàllal leen loxo par rapport à un débat d'orientation budgétaire ñu bañal ko ko ah nit ki nag boo ko tàllal loxo benn yoon mu bañ nga tàllal ko loxo ñaari yoon mu bañ est-ce euh, question non non si parce gis-gis la rek lépp gis-gis la xam nga la politique de de la politique de l'État est définie par le chef de l'État exécuté par son premier ministre. chef de l'État bi passé bu ñëwee définir politique am premier ministre ñëw exécuté ko kooku seen gis-gis la kii itam bu ñëwee gis ne man de lii yaxanal la war naa ko yóbbu fii jox ko premier ministre ne ko exécuté ko da koy exécuté. non gisuma ko parce que moom au moment où peut-être am na ko bureau am na ci koo xam ne ci réew mi moom amu ko ci toolam <laughs> ndax sa tool du am frigo. d'accord moom laa wax dama au moment où moom mu ngi koy am fonctionnaire bi. à ce moment-là citoyen sénégalais bii fay xaalis bi peut-être ko ci toolam peut-être mu yore gutt goo xam ne da koy ñëw ñëw ci euh, saaku sisal ba mu baax ba nga xam ne day sedd pour mun cee naan te pourtant moo koy fay parce que c'est l'argent du contribuable sénégalais loolu yëpp ay gis-gis la rek bien sûr c'est un bon exemple la rek non yaxanal la rek mais bien sûr mën a nekk la comme wax na ko gëm na ko bien parce que ci yaxanal la bokk ba léegi bien sûr moo tax ñuy liggéey moo tax guddeeg bëccëg ñu ngi rey seen bopp tey ñu ngi nii maatam di rey seen bopp démb mu ngi woon Chine mu ngi ci yoon bi tax di ñëw ainsi de suite c'est-à-dire bés bu set bu ñu xëyee ñu ngi rey seen bopp ci Sénégal pour Sénégal jëm kanam digg nag dafa nekk loo xam ne bëgg-bëgg la yéene la booy jëf nag mën ngaa diggee cent jëf cinquante mën ngaa diggee cent jëf soixante mën ngaa diggee cent sax jëf dix mais l' essentiel mooy am nga yéene bi am nga bëgg-bëgg bi ci bés bu set boo xëyee yaa ngi ci loolu mooy essentiel moo tax ñu ngi ci je donne l' exemple donc du monde euh, rural tey demal ci dëkk yi lañ jot ci engrais mosuñ ko jot ci àddina demal ci dëkk yi lañ xam ne amoon nañ ko ci jiw suñ ko jot ci àddina te lool ce n'est que le début du commencement nañ dem ba ci kanam déwén peut-être buñ commencé réaliser le capital am na jiw boo xam ne peut-être duñ ko jëndati sax buñ commencé réaliser donc tout ce qui est donc la la la la kii euh, variété yi céréales yi nga xam ne moom la ñuy béy mën nañ dem ba dund gi wàññeeku côté boobu parce que plus li ñuy lekk ñu ngi koy euh, ñu ngi koy béy rek li ñuy dund ñu ngi koy bay di dunde li ñuy béy rek donc euh, kii bi day wàññeeku quoi Euh, panier ménagère day wàññeeku bu baax a baax. d' abord sécurité alimentaire d' abord parce que autosuffisance alimentaire ak sécurité alimentaire du benn sécurité alimentaire mooy nga fexe boo at bi yëpp yow li ngay euh, lekk yaa koy béy. autosuffisance nag mooy mun a toog juróomi at juróom benn at même boo amoo bekkoor sax yow dina fekk yow am nga buy dellu di di jox yeneen réew yi li nga xam ne yaa ngi koy yaa ngi koy béy mais ñun dañuy importer boo xoolee li ñuy importer ci ceeb bari na trop. boo xoolee li ñuy importer ci euh, kii dugub kii dugub ak basi bari na trop. maïs surtout maïs buñ ci importé bari na trop loolu dañ ko mën a fa béy boo doyal ci sëkk quoi parce que comme ni ñu ci mel ci ñebe ñebe liñ ciy béy fii lañ koy béy fii lañ koy lekk duñ ko wuti feneen ñu mëneel bu dugub mel noonu ba mboq mel noonu ba basi mel noonu rek alhamdulilah. loolu mooy l'idéal maanaam loolu lañ bëgg fexe bu diñ jéggaani lépp lu ñuy dundee nga xam dañ ciy béy ba mu des ñu koy jaay loolu lañ bëgg loolu nag processus la gis naa le ministre de l'agriculture mu ngi baax a ñu ngi koy gërëm au passage di ko sant na ci gën a góorgóorlu moom ak le ministre donc de de moom mooy agriculture ak l'élevage na ci gën a góorgóorlu suñ ci continuer rek on on on incha allah rabi ça ira incha allah ça ira donc côté coopérative yi avec Alphaba moom itam na ci gën a góorgóorlu parce que dans ça qu'on peut aller jóge ci agriculture traditionnelle ñëw ci agriculture semi traditionnelle pour dem ci agriculture moderne bu ñu ko defee rek nañ ci génn incha allah c'est un processus nag du yomb mais nañ ci nekk rek incha allah noo xam nga boo yëkkatee sa loxo ne dénk leen ma da ngaa war a yëkkati beneen loxo ne càmbar leen ma ku ñu dénk dañ laa war a càmbar man nag càmbaruma organes yi war a càmbar ñu ngi ci biir dëkk bi ñun leen ñoom lañ dénk jox leen alal bi pour ñu war a dem càmbar bu ñu càmbaree lépp lu ñu génnee dañ ko teg ci table président la république parce que am na président boo xam ne man maa teg sama conc ci dossier yu bëri ndax su ma ko defu doon ñu téye leen kon boog moom bu mu ci teg concam na ko bàyyi ñi nga xam ne mooy seen liggéey ñu defe ko nañ ko war a defee ba képp ko xam ne la nga xam ne mooy yoon dala ko war a teg yoon teg ko parce que ñun ku nekk fii rek yoon moom moo la la moom la constitution sénégalaise moo ko teg donc ñun ñëpp ay sénégalais lañ nañ xool li yoon wax rek ñu tegu ci yoon boobu mu jeex. loo xam nga man je ne suis pas dans un débat personnel loolu dama ko mus a bañ te du ma ko nangu mukk du ma tudd ma Samba du ma tudd ma Demba. réew mi ñi ñu fi dénk yëpp bëri na kenn xamul lu tool toll y' a plus de 5000 personnes yoo xam ne dénkoon nañ leen alal réew mi donc organe de contrôle nañ def seen liggéey képp kuñ ci téye ñoo xam ne yow lañ yow lañ téye par rapport à ça. ci jubal aussi nañ la félicité tàccu la xam ne jubal nga alal réew donc li nga xam ne loolu nga waroon def. mooy comme li mu doon wax la am ñun dénkoon comme ñun dénkoon ni mu yoroon mbiru réew mi affaire Prodac fii jural nañu fi lu nekk tey bi le président Ousmane ko nekkul candidat affaire Prodac bokk na ci. kon léegi bu ñu taxawee tey ba ñoom ñi nga xam ne ñoo ne woon affaire Prodac amut ñoom ñoo ñëwaat ne am na ñoom la ba tey l' li ñu war mooy boo nekkee fonctionnaire ah ala kulli alin lu munti am ci àddina yow tegal dëgg bi rek quoi parce que moom mooy mujj mooy njëkk te mooy mujj. kon boobu bu ñu toogaatee tey bañ ne <laughs> affaire Prodac mu ngi ci kaw taal bi euh, boo ci gisee sax sa xel day tey tuuti quoi loolu nag am na lu muy wane mais li muy wane noonu war nañ ko rectifier te dans dans le cadre du jubal jubbanti bu ñu ko rectifier bu ëllëgee képp ku ne rapport bi am na ci yow dañ laa war a mun a génnal rapport boobu épinglé ci waaye duñ ne rapport bi am na ñi ne amul ñu ci jiixi jaaxa ba tey jii ni ñu ne amaat na ça doy na waar trop quoi. loolu ñu koy wax la concerné ah wax dëgg yàlla man tam comme lu ma amul preuve teguma ci sama bët xam naa daal nguuru Macky Sall Euh, li ñuy wax ne kii ak ak fu doomu aadama tumuraanke fi woon na fi trop entre deux mille euh, mun na wax ne deux mille quinze deux mille seize surtout sur le président Ousmane Sonko ak ñi mu àndal ñëpp parce que ñeem woon wax sax ne Pastef laa bokk ñi doon nekk ci bureau yi di wax ne Pastef laa bokk sax dañu doon nëbbatu nguuru Macky Sall diggante deux mille seize ba deux mille vingt quatre lu nekk def nañ ko fi li fi doo dee ci ay doomu aadama rek kenn xamul lu mu toll kon xam naa ne les libertés individuelles vraiment ont été bafoués loolu moom lu ñu constaté la lu ñëpp xam la lu ñëpp gis la maintenant euh, on doit ils doivent rendre compte ñoom ñëpp yaakaar naa ne euh, l' actuel régime du leen bàyyi te rendre ñu compte incha allahu rabbi non non non du fayu déedéet de là bu fekkoon fayantoo la kon le président Ousmane Sonko mooy commencé ci boppam ñu ko tegoon toor yëpp xam na leen mu jël leen dem dugal ci kaso bi. loolu yow sa wax la yow yaa ne mu xotti war maa ci ay kilifa ji man gisewuma ko noonu d' abord le professeur Cheikh Oumar Diagne parce que c' est un professeur. kuy jàngale xam-xam la am nga wax bi il faut ñuy teggi yenn yi politique ñu génne ko fële xam-xam ñu génne ko fële man dama bëgg nit buy wax ci xam-xam nañ ko tontu ci xam-xam kuy wax ci politique nañ ko tontu ci politique kuy wax ci wàllum àddina nañ ko wax ci euh, tontu ci wàllum àddina le professeur Cheikh Omar Diagne c'est quelqu'un boo xam ne day jàngale gis nga jàngale moom ak njàng ak njàngale ku ci nekk rek parfois day am xam-xamam mu wax ko su waxee nag borom xam yi ñoom seen bopp ñoo koy woo waxtaan ak moom ci xam bu ku nekk gàgganti sa morom ndax xam-xam mun ngaa gag mun ngaa ñàkk a mun nañ la gàgganti ñun nag comme amuñu xam-xam ñun jàpp nañ ne euh, moom borom xam-xam yi war nañoo toog ak moom ñu waxtaan ñoom ñaar waxtaan seen biir yëpp ba nga xam ne dañ koy dañ koy gàgganti benn mbir nag ñu ngi ko ciy naxarlu parce que ku xam le professeur Cheikh Oumar Diagne xam moom ak le président Bassirou Diomaye Faye bépp bu nekkee Cap Manuel xam position yi nga xam ne yàgg na koo défendre ci biir réew yàgg ko défendre pour la liberté pour les droits humains nga xam ne kon moom du waxantu loo xam ne lu muy lu muy lu muy lu muy for la de gauche wala de droite maintenant dafa am ay politiciens yoo xam ne ñoo nekk ci biir nag di def ay lobby te lobby yooyu la war a mun a bàyyi. bëri nañ ci. xaw ma je ne sais pas mais bëri na ay ñoo xam ne c'est des hommes politiques tey bëri na ñu bëri boo leen waxoon tey nga leen ñu ñu jiite ne maanaam di attaquer le professeur Cheikh Omar Diagne tey boo leen xoolee APR lañ bokkoon wala beneen parti politique lañ bokkoon. wala boo leen xooloon démb bi ñuy tëj la président Ousmane Sonko di tëj la président joom ay Faye di tëj le euh, le professeur Cheikh Oumar Diagne déggu leen woon sax ñoom ñu ŋàng waxuñu woon sax lu jëm ci loolu kon tey la ñuy soog a wax mais démb fu ñu nekkoon lu tax waxuñu woon donc ñu jël mbir mi di ko di ko jaxasee le professeur Cheikh Oumar Diagne taalibe Baay la tijaan la donc moom lu muy wax xam na ko te borom xam-xam la. da bul wax ne bul wax ne damay defan dama dama joxe sama xalaat par rapport ak xam-xam professeur la jàngalekat la. bu waxee ci xam-xam nañ ko tontu ci xam-xam ñoom nañ wootante seen biir ñoom ñi am xam-xam waxtaan seen biir xoolante seen biir déedéet déedéet non su ma nee ñoom ñi am xam-xam mooy tey ku nekk ci tarixa rek borom xam-xam nga ñi jiite tarixa yi xa tarixa yi dafa may école demal Touba nga dem Touba nga dem daaray kaamil ay borom xam-xam ay kàngam ñoo fa nekk ñoom bu ñu toogee seen biir rek bu ñu waxtaanee jubóo de man loolu yëpp dugguma ci man li ma dafa leer man ceddo laa ab séeréer laa maanaam loolu c'est pour faire de l'humour waaw parce que man en 1906 sa maam donc mi ngi woon ak Serigne Touba euh, fi nga xam ne moom mooy njaareem su ma nee ceddo la maanaam euh, waxin la mais dama jàpp ne borom xam-xam yi nañ toog rek waxtaan seen biir ñoom ñoom ñoo bokk seen ndabu xam-xam buñ ci toogee buñ ci waxtaanee rek nañ gindawante seen biir waaw ndax benn bopp la euh, ñun ñoo ko bokk nañ ci waxtaan rek buñ ci waxtaan rek jubóo incha allah. bi ci njëkk mooy ci xam-xam war nañoo taxaw ci xam-xam bu baax a baax a baax a baax a baax ñaareel bi ñu tangu ci taxaw ci liggéey le travail nu écarte du vice et de l'ennui liggéey jaamu yàlla bi ñu taxawee ci liggéey rek lu bëri ci réew mi duñ ko bëggee nañ ko am mais aussi ñoŋal maanaam reddition des comptes bu ñu la denkee nga xam ne li ñu la dénk ni moomoo ko askan wala askan alal askan moo ko moom. ñeenteelu mooy yar dañ góorgóorlu baax a baax a baax ci yar surtout éducation de base bi ndax nit ki aussi boo ko defaree ba mu baax te fekk amul yar rek daanaka. lu ci bari du du du sotti mais bu amee yar gu mat sëkk yor ko li nga ko jox dina ko mën a yor yor bu rafet boo xam ne dina ko mën a dellowaat askan bi dina mën a jëriñ askan bi te su boobaa loolu rek mooy njëriñu askan bi mais loolu rek bu ko defee rek ko teg ci dans le cadre la discussion dans le cadre mais bu mu am xët-xët bu mu am leneen ak leneen loolu bu ñu ko defee rek on peut accompagner les politiques de l'État réew mi jëm kanam Sen Teranga waaw maa ngi gërëm waa Sen Teranga di wax waa Saloum euh, nañ ci abone bu baax a baax a baax waa Saloum waa région de Kaffrine waa département de Birkelane waa PASTEF nañ abonné chaîne Teranga jàppale ki nga xam ne moom mooy seen Teranga donc ñëw bu fi fekk ñu fi donc ñu leen di gërëm di bu baax a baax a baax a baax parce que njëriñ li suñu njëriñ la njëriñu askan bi la njëriñu Sénégal la merci beaucoup